mënumaa nangu yow Bougane Gueye nga toog daal di wax ne am na benn commerçant ca Touba dafa dem Nicaragua doonte Nicaragua ba muy tëj kenn jaaratu fa ma Sall la fi nekk loolu moom du dëgg waaye nee na xam na benn commerçant bu jógee Touba dem Nicaragua kon jours Diomaye yi baaxul xam na benn commerçant bu nekk Sandaga dem na Chine kon censure Diomaye yi baaxul waaye Pape Alé Niang andil na la RTS ci sa déclaration bi ngay def nga ne waaw Pape Alé danaa ko laay gërëm daal koy gërëm ci sa kii dem ca page Facebook gërëm Pape Alé waaye yow léegi benn commerçant ca Touba bu demee Nicaragua mag jomaay nga koy xase te yow léegi micro RTS ñëw na sa sa kii doo ko taggee jomaay loolu mooy mal honnête moom kay waroon naa wax ne 100 jours yii waay waay am na benn changement bu fi am bu ma xamul woon mooy man Bougane maa ngi toog di def déclaration RTS ñëw na. te man nag doonte loolu ànduma ci ndax moom Pape Alé laay waxal parce que démocratie nag mënut warut a jur anarchie parce que am na ku ñuy wax euh, màjj màjj de defee naa ngeen koy wax ah donte nag moom maa ngi leen di ñaan ngeen ngeen bàyyi ko xel di ko partager buy woote ngeen koy wuy ji parce que dafa def sacrifice bu rëy mooy jaay sa kër jënd ci oto jënd ci costume jël ci garde corps fas yéene opposé wu loolu sacrifice la waaw kon na ngeen ko dimbali parce que xam naa da cee fàttee sangoo bay ren waaw mais moom ak ak ak ak guugaan wuruñoo def ay conférence de presse maanaam RTS di fa ñëw loolu moom du yoon parce que nag Pape bu fekkente ne buugaan bu defee nga indi RTS bu majj màjj de defee nga indi RTS kon nag bu fuuta tàmp yi def na nga indi parce que nag ñoo tolloo daraja ci réew mi ay njiitu mouvement lañu rek noonu nañ waxante dëgg rek lan moo wuutale Bougane ak Fouta Tampi Bougane du ancien du ancien candidat du ancien maire du ancien député du ancien ministre maanaam du ancien dara moom daal maa jiite mouvement rek mais Fouta Tampi am na mu mouvement maa ngi koy ñaawlu parce que rafet na nag parce que démocratie la mën nañ koo rafetlu parce que ci 100 jours yi la bokk ci bilan bi la bokk waaye nag man de man de bu ma yoroon RTS man. bu bu bu Barthélémy wootee ma dem bu xalifa wootee ma dem bu Thierno Alassane Sall wootee ma dem bu Mimi Touré wootee ma dem parce que ancien premier ministre la mais mais buugaat loolu du yoon loolu du yoon wax dëgg yàlla <coughs> non ancien rakale mooy la mais yow nga xamoo ne kii ci rakale la bokk nu mu tuddati salaam jàll salaam dañ ko rakale bi ah oui amoon naa yéene yi amoon naa yéene dem Màkka daa tax béyee avion yi fay <coughs> loolu du yoon léegi ñu ñëwaat ci beneen boo xam ne bilan la te ci cent jours yi lay bokk mooy président de la république damaa wax sànq cent jours damaa wax sànq cent jours sans transhumance mais cent jours cent média étranger loolu itam xamuñu ko woon président de la république buñ fal mu def cent jours amul benn média étranger bu ko dégg micro muy expliquer ay étranger qui que ce soit loolu mësul am musul am kon tey bu loolu amee président de la république wax ni waaw li tax ma def ko mooy bëgguma sama génn bu njëkk may wax ak ay étranger damay wax ak sama waa réew loolu jaro woon na correct association yi ëmb journaliste Sénégal yi ñu bind ñu bind ab note remercier président de la république ci act boobu mu defal presse su Sénégal te xamuñu ko woon loolu jàpp naa ne waa journaliste yi da leen a sape mais nañ ko def parce que liñ xamoon nag mooy président de la république buy wax du sóoraale sax ba xam Sénégal la koy waxee wala feneen la koy waxee kon nag loolu rupture la boo xam ne Sénégal xamu ko woon te xam na ko tey ah leneen li ci des mooy toog cent jours demoo France cent jours sans sans cent 100 cent sans et étrangers mais cent jours cent France waaw danañ ma ne nag Diomaye demoonam demoon na France déedéet demu fa taal avion bi ne maa ngi seeti papa Macron. loolu jomaay defu ko fa africain yi ñoo ne dañoo war a waxtaan tey jii suñu ndaje mii sama conférence de presse ngeen ñëw mais ñëw relais taxu leen a jóg bu ma ne woon Sénégal set la wala Seneweb la wala feneen dem da ngeen ñëw seen yoon ci fu koy defee jomaay président africain yi ñoo doon daje ñu ne France la ñuy dajee c'est ma yoonam ci fu ñu koy defee mu dem fekki ay chef d'état africain ay moroomam looloo ko yóbbu France mais taal suñu essence daan ne maa ngi seeti France loolu moom ci cent jours amagul woon amagul kon loolu tamit nañ ko boole ci rupture bi ba noppi taal sa avion bépp chef d'état bu nekk Afrique te ñun dañuy woote panafricanisme ñu jël Cheikh Anta Diop def ko muy suñu idole jël Thomas Sankara def ko suñu idole kon donc normal na nga nuroog esprit bi ngay woote. nga dem wër ci chef d'état africain yëpp seet loolu dafa bokk ci bilan immatériel boo xamante ne mën nañ koo tuddal basiiru Diomaye Diakhar Faye léegi kon Sénégal am nañ tey président boo xamante ne bokkul ci benn parti politique mënoon nañoo xeex bay bëgg dee ñu doog ko am am nañ ko Sénégal am na président boo xamante ne def na déclaration patrimoine am xam nañ ne lii la am te def loo na ko ay ministre am def loo ko ay DG am nañ président boo xam ne ministre yi mu fal wóor nañu ne ci ak bëgg Sénégal ak am yaakaar ci ñoom ci la ko teg mais tegu ko ci benn calcul politique loolu Sénégal xamu ko woon Sénégal am na tey président boo xamante ne euh, maanaam Sénégal am na président boo xamante ne wóor nañu ne amul benn complex ci ay français wala mu am ko ci ay riche wala mu am ko ci ay naar wala mu am ko ci kenn loolu dafa nekk loo xam ne Sénégal ah xamu ko woon lu jiitu tey ñuy woote lii nga xam ne mooy parti Pastef ah suñ ci jógee am na loo xam ne nuru na matériel mooy waaye du ko du wala du doon cent pour cent matériel mooy nga ñëw ñu ne la looy def nga njëkk a xool ki gën a néew doole ci biir askan wi muy ab baykat nga xam ne dañ ko mëstafaale musuñu koo def dara nga ne dinaa fexe ba bor yi ma ko ameel ma fay ko ko dinaa fexe ba problème am yi mu am ñoom lay njëkk a régler seeni jafe-jafe muy baykat yi fexe ba engrais bu doy am te yomb mais li ci neex mooy nga ne ah man kat ma nit koo xam ne wóor na ma ne bu ma ko joxee engrais bi du ko sàcc waaye fekk naa fi ñu gën a maandu ci tey ci république bi muy ay soldaar jël naa engrais bi kon ma jox leen ko nañ fexe ba baykat ba gën a néew doole